أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe seeni ndogu lundi jeudi ak ayaamul biit yal na yàlla def ko fi misaani xasanaatihim yal na yàlla fay leen yiw jox leen ndogu aljanna yi di encourager mbokk yi bu baax a baax ci woor lundi ak jeudi ak ayaamul bii di mbokk yi dañoo toll ci waxtu woo xam ne ngëm yàlla yi dañuy faible day laaj doomu aadama di langaamu ci mbir yi nga xam ne ñoom ñooy yokku ngëm te di woor lundi ak jeudi di woor ayaamul bii day yokk ngëm yàlla doomu aadama da lay dëgëral am na loo xam ne jullit waru ko bàyyi ginnaaw xiyaamul leyl woor lundi jeudi woor ayaamul biit jàng alquran azkaaru saba wal masa jullit loo faible faible faible lii waroo ko rate ci sa journée bi sa journée bi waroo xëy suba ba ngoon jàngoo quran waroo defoo azkar saba ak masa defoo xiyaamul leyli nga tëdd guddi ba yeewu julli woo yàlla julli loo yàlla benn rak loolu ab jullit waru ko def kon vraiment suñ gisee mbokk yi nga xam ne ñu ngi jël seen alal di encourager mbokk yi pour ñuy woor lundi ak jeudi ak ayaamul biit ñu ñaanal leen yàlla tabaraka wa taala mu def ko fi misaani xasanaatihim ba ca tegu mooy noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suuratu yunus tey ñuy jël ñeenti aaya aaya 7 aaya 8 aaya 9 aaya 10 ñeenti aaya yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala lam ñu ciy jàngal la ca jiitu mooy at tahzir min nisyaani al axira wa iqbaali ala dunya wal jari waraa zuxrufiha sunu borom mu ngi nuy fàttali di nu moytandikuloo at tahzir soo ko déggee mooy dañ lay moytandikuloo dañ lay wattandikuloo min nisyaani al axira nga fàtte al axira jullit saa yu fàtte al axira dundam yàqu na lii tax dund jullit jag mooy alaxira nekk ci kanam moo tax chaque jour da ngay dégg hadis yi man kaana yuminu billahi ah su fekkee da ngaa gëm yàlla alaxira bokk ci rek perte nga la budda bil imaani bil yawmil axir bil yawmil axir boobu bokk ci arkaanul iman kon ñu xam ne fàtte alaxira ku fàtte alaxira mooy doo préparer dara pour alaxira kon adduna rek ngay topp li ci gën a dangereux nag mooy wal iqbaal ala dunia nga bàyyi àllaaxira jublu àdduna te loolu mooy li ñu dal tey lu ëpp ci ñun àdduna kese daw ci ginnaaw àdduna ba mandi ba mandi am na ñoo xam ne amuñu temps wu àllaaxira amuñu temps wu ñaari rakk amuñu temps wu julli vendredi amuñu temps wu dara ci islam waaw boo waxee ñu ne la non amuñu jot amoo temps am na ñoo xam ne sax duñ julli ci jàkk boo xam ñu ne aw ma aw ma temps temps yi aw ma temps toog naa deux semaines a ngi ni dugguma ci jàkk ji kooku jullit boobu fu mu jëm toog naa ñaari weer jànguma alquran toog naa at jànguma alquran jullit boobu fu mu jëm ah yow lan ngay desal yàlla lan la nga ameel yàlla te adduna bi moom nangu woo dara raw la lépp bëgg nga koo am fu oto rafete nga ne naa ko yëg fu jigéen rafete nga ne na fanaan sama ginnaaw terrain bu ñu dagg ci àddina bi xoolal fi mu nekk nii boo demee ay jasak boor yooyu terrain yi jeex na VDN bi noonu la meloon temps Ablaye Wade koo gis corniche laa bëgg a dëkk VDN laa bëgg a dëkk booru géej tey jii ñun ñëpp lan la ñuy wax kuñ ci wax fii ci biir jumaa ji sax foo bëgg a dëkk looy wax tontu leen ma jas lu ma waral nga bëgg a dëkk jas ndax aéroport bi fa la nekk ba kañ topp ci ginnaaw àdduna rek di daw yàlla bàyyi la nga dem jëkki jas yàlla bàyyi la nga wut ay oto yàlla bàyyi la bàyyi la nga tabax ba pare war a dëkk yàlla daal lay rey ana ana importance bi nga taxoon nga dem jëndi kër gi foofu dee nga wallaay buñ doon xool ci àdduna yàlla dañuy jox misaal xoolal ku mel ne qaaruuna ah inna qaaruuna kaana min qawmi muusa fa wa ataynaahu min alkunuusi ma inna waaw fu mujj day dee semaine bi passé damay suivre ay borom xam-xam yu def benn taabu romb taabu rond ci mujizatul quran am na ci kenn bi ñu ko joxee parole mu ne borom xam-xam yi mu toogaloon maa ngi leen di delloo ci aaya suratul muminuun qad aflaha al muminuun su ngeen ko jàngee mu ne am na aaya buy wax foofu yàlla tabaraka wa taala di wax ni ma bindee doomu aadama ni yàlla bindee nit yàlla di ko wax man maa bind doomu aadama ci lumbu deret ma koy changé étape par étape par 40 jours yàlla di changé doomu aadama ci biiru yaayam mu ne ba étape mu nekk nit yàlla tabaraka wa taala di ko wattu ci biiru yaayam ak ni yàlla binde nit fa kasafna al idama lahman summa ansha'nahu xalqan axar fa tabaraka allahu ahsana alxaaliqin summa baada dalika ah la mayituun après summa innakum yowma alqiyamati tubasuun ñaari aaya yi la jël mu ne xoolal doomu aadama li mu daw adduna mi yëpp summa innakum baada dalika la mayituun après da ngay dee rek waaye amul garab loo daw daw daw daw daw boo yemangoon ay jet privé di naaw ci jaww ji bul wàcc ay hélico di la yóbbu après après da ngay dee gis nga te soo dee di nga dékki di nga taxaw ci kanamu yàlla di nga lay lan nga doon def ci àdduna kon dëgg-dëgg dañuy bàyyi xel bu baax a baax dañuy dee nañuy bàyyi xel bu baax a baax àdduna day jeex alaaxira ah yow loolu yàlla wax bal tuusiruuna alxayata addunia wal axiratu xayrun wa abqa yéen a ngi topp ci ginnaaw àddina di daw te àdduna day jeex te alaxira gëla ngeen jëm du jeex kon yàlla mu ngi nuy fàttali ko fàttali ci aaya yi nekk suñu kanam mooy an nisyaan lil axira wal iqbal ala dunia wal jari wara zuxrafiya di daw ci ginnaaw li gën a doy waar tey mooy daw ci ginnaaw taaru àdduna di daw ci ginnaaw taaru àdduna daw rek guddeeg bëccëg ñoo ngi daw waaw sama kër na rafet sama oto na rafet samay jabar nañuy rafet nangam nangam di daw rek daw daw daw après da ngay dee ñaareel bi mbokk yi mooy at tahzir min al ghafla bi adami tafkir bi ayatil kawniya yàlla ngi moytu moytandikuloo ci ñàkk conscience alxafla feebar bi gën a dangereux bi dal julli di tey mooy alxafla mooy ñàkk conscience da ngay gis jullit mu ngi woor moo ngi julli moo ngi jàng alquran moo ngi zikr moo ngi def lépp mais amul conscience islamique benn xalaatu islam nekkul ci boppam amul conscience ci li wër ci àdduna bi tey di daw amul conscience ci li ñuy fexee la jullit yi amul conscience ci dara moom daal dem maa ngi julli maa ngi woor terminé jeex na non yàlla loolu moo tax mu sàkknu jullit dafa war a ñaw muus xam lan moo xew ci àdduna bi xam lan la ñu yahudi fu ñu yahudi bëgg a yóbbu xoolal démb ak barki démb am na Sénégal am na yonent bu jigéen ah wala gisu leen ko xam ngeen ne li Sénégal am na yonent bu jigéen léegi nee na dafa ñëw mottali mission wu benn sëriñ nee nañ la ilaha illallah kere na fi mu nekk lu mu war a sol moo ñi ko gëm kere nañ lu ñu war a sol ah moo ngi lan ñoo ngi fan déedéet du yof de non fii waajoo ji doon rey gëléem yi dëkkoon nu mu tudd Mermoz Mermoz lañ nekk mais boo xoolee seen image yi nga xam ne ñi ay franc-maçon fini lañ boo xoolee image yi ndaw si ak ñi ñu àndal ak délégation yeeg seen affaire yi beneen bi mooy boo xoolee nga xam ne kii ay jinne da ko dugg ba mu fees del del del del billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ku ma bàyyi woon ak moom 30 secondes mu jinne ji yuux ay jinne ku dugg ba fees del del del kooku nii ngay gis asaaru jinne yi ci moom ku am xel nag ku jàng laa wax boo xoolee ndaw si nga xam ne kii ay jinne ko jàpp mu naan yonent la dañ kaa yónni mais xam nga lan moo garaaw Sénégal ku woote caaxaan rek am ay taalibe yu ne am commencé na am ay taalibe ah ah wala wala gisu leen ko c'est grave alxafla mooy feebar bi gën a graaw tey bi dal jullit yi ci àddina bi te xam ngeen ne ñàkk conscience ñooñu ku amul conscience sunu borom da lay dugal safara aaya bi gën a tar yàlla di ko wax waa jahannama bi aaya bi di feeñ lan la yàlla wax ah suratu araf bi yàlla di wax ne may naa ay doomu aadama bët gisuñu ma may leen xel xalaatuñu ma may leen ay nopp duñ dégg mu ne ulaayika kal anaam bal hun adal ulaayika xafla baa ngoog ulaayika humul xaafiluun ñooñu amuñu benn conscience islamique borom xam-xam bi day wax ibnayya inna min arrijali la bahima doom am na ci yéen ñoo xam ne ci nit ñi yoo xam ne ay bàyyi ma lañ xoola doomu aadama boo xam ne mu ngi sol yére di dox ndeke bàyyi ma la doom ji ne papa ji waaw lu waral loolu mu ne kooku fii suurati rajuli samiil mubsir waa ji mi ngi am melokaan boo xam ne sami rajul sami mubsir kuy dégg di gis soo ko gisee da nga naan macha allah waa jaa ngi nii waaye wa iza usiba bi diinihi mu ne lam yushur yi bu ñu laalee diineem du ko yëg du ko sentir loolu musiba la te loolu ñëpp moom dal tey ci sunu wàllu diini ci sunu wàllu àdduna lépp ci ñun kenn xamul lu xew tey ci àdduna bi ci wàllu lan la islaam fan la islaam toll fan la julli di toll ah yow sa mbir bopp amoo ci benn conscience doo xalaat doo xalaatal sa bopp doo xalaatal sa njaboot doo xalaatal sa famille say soxna ñun ñun ñëpp noonu lañ mel. am na ci ñun ñoo xam ne sax amuñu conscience sax yee seen waa kër fajar jóg leen julli mbokk jullit yi yàlla daf ñu sàkk mu tere ñu ñu ñàkk conscience bal dafa bëgg ñuy ñuy def tafkiir di xalaat bi ayatil kawniya wal quraniya ñu xalaat ci ñaari mbir parce que ñaari mbir mooy tax sunu ngëm yàlla di yokk mooy ñuy xalaat ci alquranul karim waaye ñuy xalaat ci àddina bi ni ko yàlla bindee di xool asamaan di xalaat inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wan nahaar la ayatin li ulil albab beneen aaya yàlla mu ne inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi leyli wan nahaar boobit kon nañuy xalaat ci yàlla bind bi mu bind asamaan bind bi mu bind suuf bind bi mu bind doomu aadama xataa seen bopp wa fi anfusikum ku xool sa bopp rek war a gëm yàlla sa bopp bul dem fenn sangul ba set taxawal ci kanamu seetu bi xoolal sa bopp ni la yàlla bindee ndax am na koo yaakaar ci àdduna ku mun a def lii xoolal fi yàlla def bët bët yi fi ko yàlla def nga ne fii neexuma nga seet fan lañ ko war a def xoolal sa nopp yi fi mu nekk nga ne fii neexuma fan lañ ko war a def xoolal sa bakkan bi fi mu nekk nga ni fii neexuma fan lañ ko war a def looy gis looy gis da ngay xam ne yàlla fi mu def bët foofu la fi mu def nopp foofu la fi mu def tànk foofu la fi mu def loxo cër bu nekk fi ko yàlla def da ngay xam ne kii fii la war a nekk moo tax yàlla tudd hakim ku xereñ koo xam ne lu mu def noonu la loolu mooy baatu hakim mooy ku xereñ koo xam ne li mu def kenn mënu ko corriger kooku mooy yàlla subhanahu wa taala kon ñaari aaya day tax sunu ngëm di dëgër mooy ayatul kawniya wal quraniya di xool ci univers bi xam ne li yàlla def kenn mënu ko yàlla sàkk asamaan li ngay dégg nit ñi di dof dof lu yëpp déggoo fi kenn naan sama asamaan si wala mu ngeen dégg ko ne sama asamaan si sama suuf si sama géej gi sama jant bi sama weer bi ah di nga dégg comme nit ñi mooy doon di nga dégg sama jaam ñaa ngi nii waaw di nga dégg loolu parce que doomu aadama yee mel noonu waaye doo dégg ku ne sama asamaan doo ko dégg même jinne sax di nga dégg ku ne am naa ay jinne samay jinne dinaa la booleeg samay jinne yow dinaa la booleeg samay taalibe dinaa la booleeg samay doom dinaa la booleeg sama waaye dinaa la booleeg sama asamaan kooku xam nañ ne yàlla rek moo ko moom kenn kenn munu fi wax kenn munu fee wax ne sunu borom jalla jalaaluhu am na ku mu ko bokkal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax beneen bi mooy buñ jógee ci ayat kawniya ñu ñëw ci ayat quraniya alquran dafa fees dal ak ay aaya mu ne chaque jour ngeen dégg yàlla naan la ayatin li ulil albab la ayatin li qawmin yatafakkaruun ah xoola même waa safara buñ duggee safara li ñuy njëkk réccu mooy lu tax jëfandikoo woon seen xel lan la waa safara di wax wa qaalu law kunna nasma assam fu mu yóbbu ci nit soo déggee li nga dégg lan lan la la war a jot jox ah am na lu ma dégg tey de loo dégg damaa dégg am na benn yonant bu jigéen bu ñëw Sénégal waaw nga ne teg affaire bi dégg-dégg bi yóbbu ko ci xel mi ah wa qaalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashaabi sair waa safara loolu la ñu wax ci ñun biñ doon dégg suñ xalaatoon lañ dégg nit bu déggee dara da ci xalaat alquran est ce que wax na ne yàlla dina yónni yonant bu jigéen wa ma arsalna min rasulin illa illa rijalan nuuhi ilayhim yàlla nee na mosuma yónni yonent bu jigéen kon nu ñuy toogee ba fee léegi amu yonent bu jigéen ah c'est pas possible ba pare ay nit di ko gëm ñun fu ñu jëm fan la Sénégal jëm loolu ñun ñëpp ñoo war a taxaw di ko laaj ah fan lañ jëm xam nga ci côté politique ngay dégg politiciens yi naan kii fan la jëme réew mi du ngeen dégg loolu waaye ñun tamit war nañ laa ñii fan la ñuy jëmee en tout cas du yoonu islam moom du yoonu yoonu yoonu Seydina Muhammad ma dégg benn waaye di ko tontu naan kii daf ñoo infiltré dafa bëgg a yàq suñu yoon wi ma ne alhamdulillahi rabbil alamin yéen a yàq yoonu Seydina Muhammad am ko ñëw yàq seen yoon. ni ngeen infiltré yoonu Seydina Muhammad na am ñu la infiltré seen yoon ku fi infiltré yoonu Seydina Muhammad yàlla tàggat ay nit ñu dugg ci sa yoon infiltré ko moo tax gis nga tarixa yëpp am ay doom kër yëpp am nañ doom kilifa yu ngand yi buñ dekki waatoon ñëw dañuy xool ay nit ne ñii fuñ bokk ñu ne ñii ci yow mu ne man ñii koy xaw ma leen te pourtant moom yoon bi mu fi bàyyi woon yoon woowu tey gars yi divisé nañ ko ñaata kilifa yëpp laa wax nag yi fi nekk yi fi nekkoon yoon yi ñu fi bàyyi woon gars yi dugg nañ ci sos ci ay këri këri këri këri kër ay mbooloo yi mbooloo mbooloo ba kilifa yooyu bu ñu ñëwoon dañuy xoolaat ñoo ñu naan ñii ñan la waaw comme yonent bi rek yonent bi de bu ñu waatoon ci àddina bi gars yi dugal ko ci benn jet privé wala dugal ko ci ay hélicoptère wala ay limousine ne ko kaay xool day romb ay jullit mu ne taxawal man haula ya aboubacar aboubacar ne ko haula de la naarifahum ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam day dekk yowmal xiyaam ñëw ci xawd aljanna mu fekk ay nit malaaka yi di leen dàq naan yéen du ngeen fi naan mu ne malaaka yi bàyyi leen ñii ci man la malaaka ne ko eh ñii bi nga demee xamoo luñ sos sa ginnaaw yokk nañ wàññi nañ yonent bi ne nañ ma sori kon bu yeboo ñu jàpp ci lu Seydina Muhammad indi woon loolu dong moo nuy musal ixwatal iman ba ca tegu mooy ginnaaw yàlla mooy tëndikuñu ñu topp ci ginnaaw àdduna di daw yàlla mooy tëndikuloo nañ ñu bañ a ñàkk xel ñuy xalaat ci suñu xel yi oh Sénégal bokk na ci li leen alak nit ñi duñu xalaat ñetteel mooy al iman wal amalu salih miftahul janna wa tariqul huda ngëm yàlla ak jëf ju baax mbokk yi moom mooy caabi àjjana léeg-léeg nga dégg ku ne man dañ maa jox caabi àjjana dégg naa benn vidéo benn paa naan caabi àjjana Kaolack lañ ma ko joxe woon wala gisu leen vidéo bi caabi àjjana ñu ma ko joxe woon ca Kaolack rek nga gis ku jooy caabi àjjana mu koy joxe Kaolack lañ koy joxe xanaa boog ñu joxe ko Màkka boog wala Médine ah wallaay waaye Kaolack ñëw ba Kaolack dëkk bi gën a salte ci Sénégal ñu fay joxe caabi àjjana allahu akbar caabi àjjana mbokk yi xam ngeen mooy lan mooy al iman wal amalu salih loolu dong mooy caabi àjjana yàlla loolu wax ci alquran man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salih ku gëm yàlla gëm àllaaxira jëfal jëf ju baax loolu mooy caabi àjjana soo ko yóbbaalee jeex na jëf ju baax boo ko yóbbaalee aljanna boo ko yóbbaalee àllaaxira jeex na malaaka yi dañuy ubbi àjjana ne leen dugg leen waaw amul problème ixwatal iman ñeenteel bu ñuy jàng mooy naimul janna ruuxaani wa jismaani wa huwa salaasatu kalimaat danañ jàng xéewalu aljanna ci ñaari mbir lay nekk dañ koy yëg ci ruu waaye di ko yëg ci yaram xéewalu aljanna day nekk naim boo xam ne ruuxaani sa ruu da koy sentir waaye sa yaram day sentir aljanna mu nekk nag ci ñetti baat subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salaam wa axiru daawahum an alhamdulillahi rabbil alamin ci ñetti baat yi la yàlla tënk jàmmi àjjana ak jàmmi àllaaxira tahiyatu subhanaka allahumma loolu mooy sellal yàlla jalla jalaalu wa azza kamaalu doo ko dendal ak kenn moom nga jox sa lépp booy ñaan moom ngay ñaan booy wàkkiirlu moom ngay wàkkiirlu xol bi moom nga ko jox amul keneen subhanaka allahumma wa tahiyatuhum fiha salaam ëllëg bu ñuy dugg aljanna nuyoo bi lan la malaaka yi dañuy wër nit ñi de gauche à droite naan leen salaamun qawlan min rabbi rahim fële malaaka yi nang leen udxuluha bi salaamin boobu mooy këru aljanna mooy jàmm moo tax Isa bu mu juddoo mu ne yàlla salaamun alayya yawma wulittu wa yawma amuutu wa yawma ubaasu hayya salaamun alayya yal na jàmm nekk ci man kañ bis bi ma juddoo bis bu may dee ak bis bu may dekki te ñett yooyu rek la doomu aadama ci am àdduna boo juddoo xalaatal ne di nga dee boo dee xalaatal ne di nga dekki jeex na ñett yooyu kese la ñett yooyu nag bu la ci yàlla defalee jàmm sa àdduna baax na sa àllaaxira baax na kon incha allah ci kàttanu borom bi ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi bismillahi tabaraka wa taala ñeenti aaya la
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين barakallahu fik wa kassara allahu amsalak yal nañu la yàlla fayal la yiw yàlla def la magum lislaam borom bi nee na inna allazina la yarjuuna liqaana waradu bilxayaati dunya watma'annu biha inna alladina kiñ doon jàngal ndeysaan da daan wax inna alladina joo gis amanu tegu ci seeni borom texe nañu inna alladina joo gis kafaru tegu ci seeni borom xalku nanu waaw akbar inna alladina ismu mawsul lil aqil yéen ñi jàng arab yàlla ñi am xel lay waxal waxul ak ñeneen inna alladina boo gis yàlla ñi am xel la fay waxal inna allazina gaa ñi nga xam ne laa yarjuuna yaakaaruñu liqaana ne danañ dajeeg man inna allazina gaa ñi nga xam ne laa yantaziruun allahu akbar xaaruñu wala yuamiluun fi liqaa illah amuñu xel ne dañuy dajeeg yàlla bis bëccëg ngi ñëw allahu akbar ñooñu yàlla nee na ñooñu perte nañ qad xasira allazina kazzabu bi liqaa illah fee yàlla dane man kaana yarju liqaa rabbihi man kaana yarju la wax ku mu leer ne di nga dajeeg man ñii nag ñoom dane laa yarju na ñii ñoom dañu ne ñoom duñ dajeeg yàlla hmm. ndax yàlla mun nañ ko waral laaj leen waaja ca xadis ba ca Buxaari yi ki moyoon yàlla ay ati ati at dee dikkal ko mu xam ne day dee te safara la jëm mu dajale njabootam yi ne leen bu ma dee ñu ne waaw daf leen njëkk a laaj ban bàyyi laa ci yéen ñu ne ko bàyyi ju baax mus ngeen xiif déedéet mus ngeen mar déedéet su ma dee xam ngeen lu ma bëgg ñu ne waaw mu ne na ngeen ma lakk papa lu tax mu ne seen yoon nekk ci lakk leen ma rek ngeen def ma ñaari xaaj xaaj bi ngeen def ko ci géej gi yëngal ko mu seey beneen xaaj bi ngeen def ko ci ngelaw li mu naaw bi mu dee doom ji daal di exécuter ndénkaane yi wasiya bi mu leen dénkoon ñu lakk ko ba mu nekk doomu taal ñu def ko ñaari paan benn paan bi ñenn ñi jël ko jëm ca montagne ba ñenn ñi jël ko jëm géej ña yëgg géej sotti ko ci géej gi yëngal ko mu seey ña yegg ci montagne bi xëpp ko ci poussière bi mu naaw yàlla ne ko kun fa yakun mu taxaw kanamam yàlla ne ko waaw yow sax bi nga dee nga ne nañ la lakk nañ la def ci ndox mi nañ la def ci ngelaw li nga naaw mu ne yàlla damaa ragal dajeeg yow ndax li nga ma santoon defuma ci dara yàlla ne ko maadaama ragal nga dajeeg man baal naa la dama nga dugal janna inna allazina gaa ñi nga xam ne laa yarjuuna yaakaaruñu liqaana dajeeg man foo gis ku yaakaar doo dajeeg yàlla lii mooy wane li yow kii moom dafa ne du dajeeg yàlla maanaam melokaan la ay jëf la ñoom ba ñu waxee duñ dajeeg yàlla lan lañ def waradu bil xayaati dunia dañoo nangu àdduna gërëm àdduna badalan anil axira àdduna lañ jël teg ko ci palaasu alaxira falam yufakkiru fi daaril axira musu ñoo xalaat alaxira boo leen di wax alaxira sax dañ naan booy est ce que loolu am na sax ay affaire alaxira non man gëm ma ko ah mais bu gars yi dañuy sóob rek nga defe ne yàlla dina bind nit di ko lakk doomu aadama sirru muhammad la miim aadam dellu miim daal yàlla du bind nit di ko lakk waaye booy na saf na tàng dañ ko bomb loolu moom Sénégal de loolu la ñuy wax koo wax mu ne àllaaxira amul am na ñoo xam ne moom àllaaxira dañ leen koo yenul ah àllaaxira dañ leen koo yenul leen suñu benn benn sëriñu tukulóor faatu woon na gaa yi ñëw sangu ko sangu ko jullee ko suul ko benn sëriñ jël micro bi ne on yiide o ko wawno hanki ko hande o ɓuri ɗum wawde voilà nee na sëriñ bi lim mënoon démb tey jii la ko gën a mën sëriñ bi lu mu mënoon démb sëriñ bi lan la mënoon démb ah nee na sëñ bi li mënoon démb tey jii moom la ko gën a mën ku ñu sang xam nga nit ñi du ñu xalaat sëñ bi da nga dégg dee na depuis guddi la ñuy wax sëñ bi dee na depuis démb ci guddi balaa nit ñi di ñëw suul nañ ko bu yàgg. gaa yi gaaw nañ sang nañ ko sang nañ suul nañ ko defar nañ foofu def fa ay seng nag yaa ne gaa yi bu ñëwee fajar dañuy toog rek di jooy. nga ñëw tiim ci kooku kooku nga xam dañ koo sang. dañ koo sàng ah dañ ko jullee dañ ko yenu ci biir kër gi yóbbu ba ci àll bi gas bu mu xóot suul ko ah wàcc suuf si nga ñëw taxaw naan ko visa laa bëgg passeport nga bàyyi yàlla xam nga ne xel xel moo tax dof bi bi mu gisee waa ji ci bàmmeel bi naan sëñ bi sëñ bi di yuux mu ne ko salaamaaleykum sëriñ bi daa dem Dakar waa ji ne waaye xoolal dof bu bon bi rek sëñ bi dee ngeen mu ne ko bu deewoon kat doo ko ñaan alxuraan lan la wax wa man adallu xoola baat boobu la yàlla utilisé wa man adallu mimman yadu min dunillahi man allahu akbar laa yastajibu la xoola kañ mu ne ila yawmil qiyamati lu tax mu ne wahum an duwaayim la ghaafilun ki ngay woo yëgul sax na yaa ngi exécuté yow am nga ci àdduna yàlla neen ki gën a réer mooy kuy woo ku ko dul wuyu mën ngaa woo ku nekk àllaaxira ba muy la damay laaj benn laaj fii ci jumaa ji benn su ma laajee laaj bi ku ci njëkk a tontu yow la ci jàkka ji kan la papaam di dund yow jërëjëf doy na tey jii kii bu ñu ko doon dóor fii ci jàkka ji ñun ñëpp ñu koy soj sot muy yuuxu naan woy papaay papaam dina ñëw ndax papaam dégg na ko pourtant papaam a ngi dund mu ngi ci àdduna léegi nag ku jóge àdduna dem alaaxira rek ngay woo sa pap dina ñëw allahu akbar xale bi ñuy dóor fii tey muy yuuxu di woo papaam allahu ci mbedd mi si rek la nekk papaam ci biir kër gi wala da ngay dégg ñu ne xale bi yuuxu na ba sonn papa ji ne dégguma ko dégguma ko waaye léegi nag papa ju nekk àllaaxira nag ala xamu leen affaire yi ay frontière la ay monde la yu bokkul fa am alamul dunia am alamul barzax am alamul al axira benn dund bokk ci ak sa morom ci àdduna bakkan bi ak ruu bi ñooy ànd barzaq ruu bi mooy jiitu bakkan bi topp alaxira ñoom ñaar la ñuy lënkale bi dugg àjjana wala ñu dugg safara foog ñu xam loolu mbokk yi ñi nga xam ne laa yarjuuna liqaana yaakaaruñu dajeeg man laa yantaziruun xaaruñu loolu waradu bil xayaati dunia ñooñu dañuy gërëm àdduna rek wat ma annu biha xala dañuy naam na ba am conscience ak xel mu dal ñun dootuñu dee quoi àdduna yaxsabu anna maalahu axlada allah day am alal da ngay gis ko am alal ba ñu ne diw dee na nga ah da ngay wax rek yenn saa yi ñu tàggee fi nit nga gis nit ñi ne du dëgg lu tax parce que daa am doole lu tax parce que dafa am alal lu tax parce que dafa am daraja lu tax parce que dafa am ndomba tànk semaine bi passée dafa am benn benn basketteur américain ah yaakaar naa moom moo gën a mën a basket Amérique de ah wala ci ñi fa gën a fort la bokk waaw wala dafa dugg hélico hélico bi daal di exploser mu daal di dee ma gis benn sénégalais boo xam ne feebar na ko ay fan jàngiwul feebar ndax naqarlu kooku lu mu dee waaw waxuma la jàngiwul mais dafa feebar ndeysaan parce que dafa bëgg waa jooju te waaja dee na allahu akbar xoolal kooku ñaata milliard la bàyyi ci àdduna bi ah xoolal li mu fournir dooleem yépp ci àdduna ci basket la ko def su demee ci yàlla lu mu koy wax ñaata pañe laa dugal ñaata disque d'or laa am ñaata cassette laa woy ba ngay wax yàlla ndax nit ñeme na taxaw ci kanam yàlla naan ko man man maa nekkoon roi des arènes 1979 ba 1900 man maa yoroon affaire bi quoi loolu bu ko nit waxee ci kanam yàlla foo jëm allahu akbar waxoo ñaata ràkk nga julli waxoo ñaata nga woor waxoo loo jàng alxuraan waxoo waxoo ñaata kaamil nga bind ah sa dund ñaata kaamil nga ci bind di nga gis ku bind 20 kaamil ci loxoom 20 yoo xam ne xoolul ci téere te benn virgule juumu ko benn waaye mu ngi may wax léegi léegi ci benn audio whatsapp nee na sama nijaay dafa mokkal alxuraan mais ma xaari jël xuruufam baaxul mu ma woo ma ne ma bindal ma aaya bi mu ne inna li chiina booy bi tamit daal dem di bind inna li chiina daal di bind inna daal di bind le chi def ko de siin paa bi na ko hee du ni inna le chiina laa xam nga bind si day am kii la del la gu am tomb ca kaw kon gis nga paa bi xoolal ni maîtriser alxuraan bi mais ma xaariji huruf bi moo baaxul mais di ko maîtriser soo ci yàqee benn xarf mu taxaw loola amoon nañ benn naar ndeysaan bu daan jàngi bu daan jox sunu daara da daan bëccëg mais bu ñëwee fekk ñu yor àlliwe di jàng fële lay toog ku yàq alxuraan dàll la lay dóor saaga la seen saaga yooyu ñu tàmm di wax ñoom naar yi ndeysaan mu mujj na loolu mujj na loolu ba nekk jàngalekat ci daara ji ci événement naar yi lañ ko gëj a gis ñu toog ba ay minuit rek mu fëgg buntu kër gi ñu ubbi gaa yaa ngi ko dóor ba mu sonn ndeysaan mu daal ñu ubbi rek muy moom muy yuuxu di wax laa ilaha illa allah sama papa daal di koy jël ndeysaan mu ne xoolal yàq nañ sama kaamil mu ngi yor kaamil bi mais feuille yi kii la yor nu mu tuddati kii bi ci kaw hmm? couverture bi la yor couverture bi couverture bi la yor mu ne kaamil bi réeral nañ ko sama papa jël couverture bi mu ne ma Saïd ma ne ah mu ne ma o adandi ko dandi ma ma ne ah mu ne ma alquran dandi o mu ne ma alquran moo sauvé kii ndax ni mu ko mokkalee teg ko rek ratatatatat la koy def soo ci yàqee benn xarf so day mel ne moom moom moom alxuraan bi day xeex ak yow allahu akbar loolu moom mooy jullit loolu mooy islaam loolu mooy imaan mais ñun boo déggee ñuy yàq alxuraan sax yow sa yaram du daw doo xam sax alxuraan la ñuy yàq ñaata Sénégal ngeen gis fi ay doomu aadama yu yàq alxuraan du jeex du jeex ci ñun waaye sunu yaram du daw sunu dara du yëngatu sunu borom nee na ñi nga xam ne dañoo nangu àllaaxira kontaan ci dëkke ko ba seen xel dal ci borom nee na wallazina hum an ayatina gafilun ak ñi nga xam ne amuñu conscience ci samay aaya ulaayika ñii ñëpp maawahumun naar safara laa leen jëme ñaata mbooloo la yàlla wax safara la leen jëme mooy ñi nga xam ne nee nañ duñ dajeeg yàlla ñi nga xam ne dañoo def àdduna kër ñi nga xam ne dañoo def àdduna dëkkuwaay ñi nga xam ne duñu xalaat ci aaya yàlla yi mu ne ulaika ñii ñëpp ma'awaahumun naar seen kër safara la bi ma kaanu yaxsibuun gis nga yàlla dugal leen safara ndax moo leen ëpp doole non non dafa am sabab baa bi baa u sabab yi la bi ma kaanu ca lañ nekkoon yaxsibuuna di fàggu ci àdduna loolu moo leen dugal tey safara àdduna amuñu fa ci àllaaxira amuñu fa yàlla benn cër parce que dañu ne woon ñoom duñ dem àllaaxira biñ deen duñ dem àllaaxira ñu nangu àdduna seen xel dal fi ñu ut fi lépp teg laa ila benn sëriñ dañ ko invité ci benn kër mu ñëw ne taalibe bi ne ko sëriñ bi xool sama kër gi sëriñ bi tàmbali ci suuf di wër ba kër gi mu yéeg yéeg yéeg ba kër gi jeex lépp a ngi ci kër gi loo xalaat rek mu ngi ci kër gi lu war a ligsal kër war a def kër noflaay piscine sax a ngi ci kër gi lépp la ci waa ji def sëriñ bi ne ko ni nga def kër gi ni nga defee kër gi ba safara bu ñëwee bàyyi ko fi ndox bu ñëwee bàyyi ko fi na nga góorgóorloo noonu jaamu yàlla ba sa yaram bi ëllëg mucc ci safara noonu taalibe bi xulli sëriñ bi ay bët mu ne ko xam nga mboq xam ngeen mboq ku xam fi mboq nekk ci loxo kon am na ñu xamul mboq wala nga ni makka ah wala ñaama makka wala nga di jooni mboq ok mboq ñaata yëre lay sol ah mboq ñaata yëre lay sol mbokk yi ah bëri na waaye bu ñu simmee yëre yëpp ba pare fu ñu koy dugal kon kon sol amul njëriñ mboq ñaata yëre lay sol da ngay dem nga jënd mboq nga ñëw teg xool li première yëre prr deuxième frr troisième frr di simmi di simmi yëre yi ba yëre yëpp set nga teg ko ci taal bi li ko doon protéger yére yooyu ban njëriñ la am sutura kese la jaamu yàlla mooy tax ëllëg nga mucc ci safara loolu moo tax ñu war a góorgóorlu ci jaamu yàlla yor borom bi bàyyi na première partie bi ñëw na ci deuxième mu ne inna lazina gaa ñi nga xam ne gis nga amanu dañoo gëm allahu akbar wa amilu ñu jëf assaalihaati jëf yu baax yi ñooñu yahdihim rabbuhum bi imanihim chaque jour gis nga ku am ku gëm yàlla yàlla moo lay orienté bi imanihim ci seen gëm la leen yàlla di orienté moo tax lu ñu leen wax am na yonent bu bees bu génn bi nga mukk mukk seen xol mooy bañ waaw lii est-ce que diine la da ngay gis xol yi di bañ naan ni jayaaka heen ko waɗan mbaɗi ɗum hen jeeyaka hen yahdihim rabbuhum bi imanihim iman day jubal nit ko amul iman nag ci àllaaxira nga jëm ko amul iman da ngay réer da ngay alku iman torsu la mooy niital nit fu muy jaar ngëm mais soo amul iman sa àdduna yàqu na sa àllaaxira yàqu na moo tax borom bi ne ñi gëm yàlla taxaw ci farata yeeg naafila wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim mu ne tajri dina daw min tahtihim ci seen suuf ëllëg yowm alqiyam al anhaaru ay dex fii jannati naim allahu akbar ñii dinaa leen fay ëllëg dinaa leen jugal ci aljanna joo xam ne naim aj ajjana ñaata ajjana la ñu ñu ñu ñu avancé ndax ñi ci ginnaaw ñi ci ginnaaw dugg fi jannati naim ajjanay xéewal ajjana ñaata ajjana la ah juróom-ñett am na ajjana bu tudd jannatu naim am na firdaws am na jannatul xuld am na jannatul mawa am na jannatul wax naa ko la ilaha illallah am na ilayin am na des na ñaar de ah kon yéen xam ngeen ajana nañ teg point boobu foofu ba samedi bii di ñëw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye yonent bi nee na ngeen ñaan yàlla firdaws beneen bi mooy léeg-léeg nga dégg ku ne àjjana man de moo toogee ci bunt bi sax baax na non déedéet pourquoi déedéet dañu war a dugg ci biir ah dañoo war a dugg ci biir ndax ñi fa dugg ay lan lañ ay mbindeef lañ comme yow lan lañ def ba dugg fa leen saa nga dégg Sénégal ñu ne diw kenn mënul mel te moom bu la ñu sonal ay gooto waawaa nanu dee makk kenn mënut a mel ni moom loolu wax ku daanu ci saret la loolu wax ku daanu ci saret la xoola yonent bi fu mu jëlee saxaaba yi ba ñu nekk ay nitu aljanna Abu Zarrinil Xafaari lan la woon agresseur Umar lan la woon daan jaamu xërëm kenn par kenn saxaaba yi am na ci koo xam ne tàndarma la doon tàndarma moo doon yàlla am tàndarma tukki dem ci àll bi xiif daan ne yàlla ji àll ma bopp bi bañ dem dëkk ba demaat ba yàgg xiifaat mu ne àll ma benn tànk bi ba yàlla ja jeex am na koo xam ne dafa ñëw fekk benn saalab loolu nga naan saalab ma njàppaan ah njàppaan bi di tuur ndox di saw ci kaw yàlla am ne lii mooy yàlla xoolal ñooñu yonent bi liggéey ak ñoom bañ nekk ay nitu aljanna yonent bi di woo diw bañ ñëw mu ne anta min ahlil janna nga dégg ñu ne asara mubashirina yàlla xool waa Badr mu ne yéen ñëpp baal naa leen àjjana ngeen jëm ay nit yoo xamante ne dañ doon naan sàngara dañ daan njaaloo kunna qawman ahla jahiliya la saxaaba wax nasrabul xamr wa naatil fawahish wa yaakulu minna alqawiyu daif soo ko toppee dafa gudd loolu yëpp yonent bi saa salaam fexe ba gaa yi tey nekk ay nit aljanna ñun ñu naan ñooñu kenn mënul mel ne ñoom ñoom imam malik ñëw topp sahaaba yi wallazina tabauhum bi ihsan radiallahu anhum waaw ñun ñu ñëw léegi naan non non non ñoo ñooñu kenn mënul mel na ñoom nañ noppal suñu bopp te ñooñu lañ doon def nekk fi ñooñu lañ doon def mooy woor julli xiyaamul layli jàng alquran jaamu seen borom jox seen borom am aqida bu set am iman loolu nekkatu fi amu fi ñooñu alquran bi ñu doon jàng mu ngi foo la nekk fi ah tey la gën a neex sax tey la jàng alquran tey la gën a neex xoolal yor naa benn logiciel sama tablette bi su ma ko programmé na ma a tablette bi jàngal aaya bi 30 fois mu jàng ko aaya bi rek lay répété 30 fois te da koy indi ahkaamu tajwid loolu tey boo ko defoon yow bis bu nekk nga mokkal benn aaya ah ah saxaaba yi dañoo amoon dañoo amoon téere alxuraan bi buñ ko dajalee amuñu ko woon fuñ ko daan bind ay xobu garab ci ay ay der ay yow tey ñu defal la kaamil boo xam ne kaamil bi ni mu rafete waxuma dara sax waaye mu ngi sa portable nga koy yóbbaale fu la neex ku la neex aussi nga téléchargé ne kii moomay jàngal kooku jàngal la ko est-ce que saxaaba yi amoon nañ lool kon ñun kay sax dëgg-dëgg ñun ñoo ëpp sens mbokk jullit yi suñu borom nee na ñooñu danaa leen dugal fii jannati naim waaye bu ñu fa duggee ci biir àjjana lan mooy nekk seen wootante ak nuyoo tahiyatuhum fiha daawahum fiha salaam subhanaka allahumma daawahum fiha subhanaka allahumma ay yatlubuna ma shaa'u bi kalimati subhanallah waa àjjana bu ñu duggee àjjana lu ñu bëgg dañ naan subhanallah loolu daal di ñëw loo bëgg rek subhanallah ngay wax affaire bi daal di taxaw sa kanam ak lu mu mën doon mu ngi mel ne rek ku yor télécommande boo yoree télécommande nga yor benn écran plat koñ ba koñ kay nag ki mooy ngand fekk naa plat bi koñ ba koñ la nga gis waa ji ñëw toog yor naan naan nii affaire yi naan seen yi naan few few few few nga ne ko lii ñaata seen la mu ne la non adduna bi yëpp a ngi fii ngir kay la non allahu akbar billaay kon xam ngeen ne àjjana yàlla du moroom nga toog ne subhanaka rek benn palaatu ginaar daal di taxaw ah nga lekk ba pare nga ne subhanaka zi daal di dàqante allahu akbar subhanaka rek affaire yi di ñëw ah amul arrêt yàlla subhanahu wa taala moo foofu ci aljana lépp lu ñu bëgg dañ koy am lépp lu ñu bëgg dañ koy am biir aljana keroog benn mbokk bu jigéen mu laaj ma mu ne moom da doon werante ak kenn nee na àjjana boo fa duggee yow yaay toggal sa bopp ataaya kooku ne ko non non ataaya bi day ñëw nga naan ñoom ñuy werante non non da ngay dem nga raxas bu kaas yi nga ñëw teg di taal di taag di togg keneen ki ne ko déedéet lu ah ma ne ah seen werante bi neex na de waaye ñaar yëpp am na fa ñaar yëpp am na fa àjjana yàlla dafa xam doomu aadama yi daf leen utal sax marché parce que doomu aadama nu mu toskaree dafa bëgg lambar lambaree toog dem ba marché yàlla daf leen utal sax marché da ngay dem ba foofu waaye da ngay ñëw rek jël di ñibbi sa kër xam nga boo toogee sa kër mu ñëw waaye am na ñoo xam déedéet man damay dem ba marché xooli ndax ndax doomu aadama ni mu mel moo tax tamit loolu ñoom man leen yéen ñaar ñëpp ku nekk yéen a ndax ne yàlla nee na li nga bëgg ngay am kon soo bëggee toggal sa bopp nga ne war nga war nga ñëw suukar suukar ñëw gaz gaz bi toog nga teg nga toog di fuural loolu nga bëgg ah loolu nga bëgg yaa ko bëgg di aaya alxuraan la ma tastahi al anfus wa talazzu al ayun waa ji lan moo ko neex mooy ma atayal sama bopp wa talazzul ayun mooy may xool may fuural yàlla na ko defaral sa bopp ah waaw loolu dax bi waaw mu nga kon nag kon nag mu nga allahu akbar yàlla nañ ci yàlla boole ci ñooñu nga xam ne dañuy toog biir aljanna jàkkaarloo ndeysaan ala sururin mutaqabilin jàkkaarloo ndeysaan léeg nga toog ba jàng nga ne ana ñoom diw ana diw allahu akbar yàlla nañ ci yàlla boole ni ñu toogee ni di jàkkaarloo samedi bu nekk yàlla nañ yàlla boole noonu ci biir aljanna ñuy jàkkaarloo lu yomb borom bi la te mën na ko borom bi nee na wa tahiyatuhum fiha salaam aljanna bu ñuy nuyoo assalaamu assalaamu assalaamu aleykum assalaamu aleykum wa axiru daawahum an ilhamdulillahi rabbil alamin borom bi nee na ay axiru duaihim bu ñuy ñaan seen mujjantalu ñaan alhamdulillahi rabbil alamin loolu dafa war a bokk ci ñaanub jullit sooy ñaan ba muy fin moo tax gis nga yenn saa yi nga dégg ñenn subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin ñaan fu mu war a jeexee rek mooy dañu war a sant yàlla kon bokk jullit yi lay mooy sunu dar si tey ñoo ngi jégglu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu